sëñ Mourtala alaykum wa rahmatullah na ngi nuyu jere jeuf sëñ Saliou na ngi leen nuyu bax di nuyu askanu Mbàkke fi tew ñep ginaaw suñu digganteeg sëñ làmp nag eh, Saña Mbay mu bax me nga xamni mam sharane Sorane Fall rek la bëgg ba ni xamante dañuy door dem dakaru muy ko bëgg sëñ touba ko xamni ci lu ñu xamante mooy kum xam ku bëgg a jàngal alxuraan rek man lay woo ñu ànd ci ay barab yu bari yàlla yàlla defal la jàmm ba ba tey nag génnul sëriñ bi foo ko fekk lu baax lay wax salaam jërëjëf ñoo ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm di waajal la diis bisub maam Cheikh Issa ngi nuyu ñëpp Seydina Omar Diagne Asadul Xaddim biñ may woo sax may ñëw gisuma la woon waaye moom mii fu mu nekk rek doy na sëkk ci waxtaane Serigne Touba. muy jambar don koo xamne gay nek serigne bila bi la asadul khadim tur la wo ñu tuddi bari wut yalla yalla defal tawfiq waye ñoo ngi nuyu bax bax baax nak ko yi nak di mbokum sëñ Abdourahman Lo di mbokum serigne Mor Penda bokkeeg sëñ Tubaa ca Ceerno Farimata ca Ceerno Farimata di baye Mati Mbàkke Ousmane si baye Alaaji Malik Rakam balla ay di wajuru Serigne Touba khadim rasoul rakam Ahmadou soxna Bas di wajuru soxna Astawaala soxna jara ko ñu tew fi nit ñu bax la ñu xamni xam ni askanu Mbàkke euh, nekkul ci serigne Touba la tàmbalee serigne Touba mo sant mbacke bayam serigne mor sant ko bayib serigne mor di balla ay sant ko fi ne serigne Touba bayam dogo tudde ab xaritam bu ko mom sëñ Mor bayam tudde bayam tudde ko yonent bi Balla aisha bayam Balla mam mamaram tudde ko mamam muy Abibulaay bu magma abi Abibulaay itam jël mamaram tudde ko mamam Muhammadul khairi mooy mam mamaram yaay mu tudde aram ñang ñu naan ko mudum aram ñang mum lan kon yeen furis ngeen bokk wa ñi fi tew sëñ Ibra fari ko xam-xam kook sëñ tuba te njambar gaag bëgg bi sing tuba boole woon ko ca ndabul kersa lañ doon wax ca jolof te ndab loola ñi ci suku dawul bari waaye seen maam ci la bokkol ci la balon cheikh seigne moudou mamoun kon lamp jef ci sest bi nga def ci kilifa fi tew nga cëral leen kaddu gi waaye ñoo ngi sant kaddu gi bëgg yëgal seen kanam wax ji nak fi mi tambalé moy sëriñ bi ci duggu genn ci ci lay yam tamit rawat na bi ñu nekk nan nun ko war wormalé ndax ekana seigne mor penda mi nga xamni moo ko Ibra Fër yi ñoo bokke ca maam daam Seynabou Ahmadou Dioussi bi sëñ Touba di ñëw fii ci Mbàkke ci Touba moom la daan àndal buy ñëw bu sëñ Touba ñëwee ba ndaam lay sumi dàllam ndaam fi ñu toog nii bokk woon ci dëkk bi ndaamaatu moo gën a jege bokk ci woon bu njëkk ku sant loo fu mu dëkk ak ndaam lañ ko woowee moo waral turu ndaamaatu gi sëñ Abdourahmane loo fa nekkoon yor daara ja waaye kër Balla nekkoon turu wa kere bu ko sëñ Touba yeewee la fa wutal sëñ Mandumbe moo ko wutu foofa bokk ci woon keur ñang sëñ touba da wax sëñ Mudu fadiama ñang demal sañ fo bo liggéey bu wa touba nodd nga dégg ko gaaras Dakar bu ñëk bi bokk ci won ndax sëñ bi jugé na geej am fi siwuma ci demul fi jumaa nek waye waaye bi bu musaan jógee Daaru Salaam booba bu dëkk bi waye day ñëw di fi jang alcorane ak di fi bind xasida di ko léemoo pak bi door fe ñëw sëñ touba bu ñëwé ba day sumi dalam, sëñ Mor pende mi seen mam mu yëkkit dal yi dari ko te ci kanam sëñ touba dal di koy jéggi war romb dal yi bamuy mi ñettel mu ne ko mor pend mu ni mbàkke mu ne ko xam nga tax ma sumi ko mu naa ah, mu ne ko suuf si ñëpp ko bëggan bëggul ko ko moom ku dul man ku ko mësa bëgg day bañ man la bëgg ma moom ko moo tax ma di ko warmal nee na bi ñu demee ci pàkk bi sëñ tubaay di julli ma wax ci sama xel sëñ bi daa mel daa mooy xibla de nee na ñu wan ma kaaba gi ma jàkkaarloog moom bi sëñ bi sëlmalee ni ma mor pend ma ni mbàkke ma ndax xam nga alkaxbatullahi ma ne ko waaw mu ni kooku fu ma jubbu fa lay jubbu sëñ bi ñu ma tudd sëñ Mor Penda mooy waajur sëñ yaa ngi dégg léegi nag xoolal sëñ bi ni mu sàmmoo mujj gi buy ñëw day ànd ak sëriñ Mouhamadou Ndiaye xewar sëñ bi ñëw ci dëkk bi ne ko dellul ca daara ji Daaru Salaam laajteel ma fa gan gu tudd Masamba fekk da ko njëkk jox ay bërigo ne ko demal duyal ma ko waaye xoolal sëñ teggi na yi ak ni mu fonki waa këram yi dañu ko boo demee tegal tegal tegal bërigo bi ci ci bunt kër ga nga taxaw daal di ne salaamaaleykum ñu wuy la nga ni sëñ bee yoon yónni ne ko bu jigéen ñi ñëwee nga woon leen ginnaaw bu ñëwee ba jël xandi gi doyal la ko ba indi waatal la ko nga bàyyi ba déggatoo leen nga door bi di ku jël ko waaye sa bët bu mu tege ci soxna yu tedd yi muy ñoom soxna Abusa ñoom soxna Amin Tollo ñoom soxna Mariama Touré ñoom soxna xëri Penda Fall ñun ñoo nekkoon Darou Salaam sa bët bu mu tege ci ñoom nee noonu laa koy doxale noonu laa koy doxale su ma ñëwaatee du ma xam sax fu sëñ bi nekk damay tegale ay bant ngir mu bañ maa réer ndax ñax mu bari mi ci tubaa nga xanaa léegi tubaa gën a yokk ci adduna bi moo tax sëñ Baara Xaadim Rasul bi sëñ tubaa nelawee dafa ñëw ci jumaa ji rek daa di jooy daal di jël xëlimaam keroog dafa taarixal suuf si suuf Touba mais da koo jigéenal bi mu koy way daanaka suuf si yow war nga bëgg te sant yàlla te kontaan ndax ki tëdd fi yow tëddul ci mel ni réew. nusra ki yaa adak tuba yow ma nil ti ala kullal bilaadi bi an seexi kula ala. wallaay ki tëdd ci réew mi amul fu mu tëdd ci adduna bi. 225 réew moo ne ci monde bi benn réew mooy dem fekk fa ku mel ni sëñ Touba amul Sénégal la am ca Touba la tëdd moo tax pakk bi mat naa warmal seen sëñ Mourou Moussa Fall mii waajuru sëñ Abdourahmane sëñ sëñ am di cikki sa sëriñ fi ne da gis Baye Fall yi di jël ay sarbet di ko gàccoo fomp ñax toxu ko jug Cheikh Moussa moo daa wu tifli Touba nee na kenn du fi tifli moom lañ ci roy ko ci gis suñu sambar na koy def koo gis moom ko gàccoo kooku mooy maa ngi seen di cikki sëñ Mor Mbaye Cissé bu daan ñëw ci dëkk bi bu ñëwee ndula day wàcc daal di ni ñi mu àndal wàcc leen kenn dafa tur ndox ñoo ñooñu warumaaloon ñooñu warumaaloon sëñ Tuubaa wala yi xam nañ ki fi tëdd bala nga xam ni ñoo ko warmaal mooy dañoo tiim sëñ Tuubaa ñoom ci Tuubaa gii ba ci fajar lañ ko denc keroog bi ñu koy denc fajar moo jot borom dawri ni bàyyi leen ko man jël ba nag ñoom mag ñooñu am patience dem àggale seenu fajar bàyyi sëñ tubaat ci cause bi ñëwaat àggale ko ke leen defaroon nekkatul adduna kooku jiñ da nga ko nax kooku ma nga ci yàlla boromam liñ ko tiim lépp kenn rek moo fa yuuxu sëñ Mbàkke bi soo ko gëdd ne ko tuug xaaral ba ma déggaat sa kaddu xanaa xamoo kii tëdd nii ba na yar bis bee taxoon daa bëgg nu gëm yàlla daa bëgg nu gëm yàlla waaye xoolal sëñ Mbàkke bi so sëñ Tuubaa moo joxe ndigal ni nee ko na ma jullee kooku bi mu jullee ba sëlmal bu ko neexoon du ne may yoon wi mais daawul wul ko ni taw sëñ Tuubaa bi jox naa la sama bu ëpp nag alaxira maag doom yàlla ak mbokk ak mbokk taxul yàlla tax yàllaa tax ndax seex sëñ bu Buso nu ne mën na koo nu ne mën na koo kalee sëñ Tuubaa dooñuy bàjjinam aller ak retour yaayam fàtte Balla Kubra mook sëñ Moor a bokk bàyyi Balla Aysa leen jur bàyyam sëñ Buso moo soxna jaar bokk ndey ak bàyyi waaye musta kale sëñ Tuubaa yi sëtam yi kenn du ci maami sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa sëriñ bi ñu wormal la kenn du ko taf ci ay tiset loolu sëñ Tuubaa jomb na ko sëñ Tuubaa du ko ñuy waxtaane ci tataay yeeg bis yi boo duggee naan sëñ bi du kenn kenn laaj amul morom sëñ Tuubaa ñu ko bëgg lañ koy waxtaanal ndax sëñ Sàmbay moo wax ni xadara bi yàlla ba boo fa demee bu sëñ Tubaa taxawee kenn sëñul raf sa tuñ ko fekkee musuñu sëñ Tubaa joxu la digal waaw sëñ Sàmb da ko wax ci olof nii rek ci waxul bay di wax sëñ Tubaa moo bindal ba fa wax ni buntu bi yàlla ba la ma yàlla jox ku fa jàll sama digal nga ko defee ah taaniyallahu baabahu wala yamur bil baabi illa bil masiya kooku amutu ndaw la de kooku nag bi mu seexalee seex yi 626 la ñu mu sekhal len kenn ku ne bo ñewé dalay jariñ bala nga ñibbi da ngay joggé seen kër boy dem seen jaay dañ lay méré lu tax nga bayyi fi suñu ndonal naan da ngay wutib sëriñ jëf bo démé mu défar la dara la booy dellu bul sol jasneer yére yi nga doon tërbiya yo bo aggé seen dëkk sa doomi yi ya la doon kalé duñ la kalé yi yaay ju doon seen sëriñ dëkk bi nga bàyyi koon dañuy mujj koy dawru ñay wala dawru jaw wala dawru nangam nangam parce que yaa yaay ñëwoon bi muy bi muy gërëm seexi sëñ Tuubaa yi sëñ am di murum soifal sëñ murum soifal mi jur sëñ Abdourahmane sëñ am di cikki sa sëriñ bu fekkoon maam Sëriñ Fall du baayam day bokk ci seex sëñ Tuubaa yi loolu ku dul maam Sëriñ Fall doo yaayi sëñ Masamba amoo ko juróom benn doom yi sëñ Tuubaa seexal seex yi li ñu bari bari kenn amu ci juróom benn doom yi sëñ Tuubaa seexal sëñ ma sàmba ndeyam Lat Joor a koy isa jéey am ca moor isa li si xaarkat baa ko ni kii day am wàllu ci da doon bàyyam xoolal koo ko jox mu jox ko sëñ moor hmm. sëñ moor am ca sëñ ma sàmba daal di génn àddina sëñ daam ko jël jëbu loo ko yor ca ngaabu am ci sëñ am suti loo sëñ ibrahima loo sëñ mudloo isa seebdu karim loo ñoom ñëpp sëñ Tuubaa leen gërëm maam Serigne Fall nag bi sëñ Moussa Ka di lim seex sëñ Tuubaa bu ñu ñi sant Fall dañu seex Moustapha Fall xat xawaa ni Fallaa doy na xalifa taam na aala Mor Talla Fall Bésirou Fall Assane Fall Aliou Fall Ahmad Abdoulaye Fall nar loolu ku dul Seera Fall ko mu bëgg sëñ Tuubaa lool benn bët la amoon sëñ Tuubaa la ko daan xool sëñ Tuubaa ne Ibra Fall mel ni xel nekkul daa wéree di amutum xel de am xelam man rek la xool loolu la jublu dafa njooloon ca kaw 2 mètres 04 la koo mën a doon boo ko xool da ngay tiin daal di bon lay sol oto bi muy doon mi ngi tudd vax vegan nobul la woon dawul yalwaan am naa ngërëmul sëñ Tuubaa di yalwaan bi fi la ko laataane yam loolu dalul Seex Ibrahima ma dalul Seex Ibrahima li may leeral nag mooy yéen sëriñ diggante sëriñ si ak talibé yi ni fi sëñ Tuubaa doxalee Seex Fall bañ xam ne ak talibé yi rek am solo sëñ Tuubaa daa jóge géej ñëpp taxaw di ko xaar mu wàcc port autonome bu Dakar 11 novembre 1902 ci weeru saxbaan gi ñu dugg sa seigne touba ñibbi si geej ñëpp taxaw di ko xaar waye mo bari personnalité touba bi ko yóbbuwoon na seigne touba fooye ndax dañ ko wol seexanta mu wacc ni ana seexanta fooye na ko te yëgu ko may ànd na dem geej ba rek mu ñëwee mala la yónni moo ñëw ni uwee seexanta ñu ne ko mi ngi mu ñëw maam seexanta seigne touba ñet ñet escalier yi bato bi afa mu ag escalier da taxaw da di ni seexanta ñëw ne na keroog kuma bo boo ma noon ren du ma ko ndax bima jakkalu jàkkaarloo jëmam ji li ma mu taxaw tem, dafa daf moom dafa diggu doomoon njoolul gëtt ñama dafa jip ci dafa xeereer tu ku wax da lay dey sëñ tubaa du xaq tay du talal tankam tay ya fusu ah. nee na mu ne ko cheikhanta mam cheikhanta dari wuy wuyu mu ne ko top leen sama mbor moy sama soir walay du ngeen gis mukk ma def lu ñàkk fayda lu ngeen may xéere tubaab bi ma àndal mus ñoo xam lu ma bëgg lu dul yalla sama borom mus ñuma jëme ci lan ba ma nak ko te ku mos ànd ñom ñoom seen rek ko na ba mu des man avant escalier yi jeex nag mu ni maam seexante lu sama way mu lewi ko def ci poso bu jàppoo sax dañ koy dékkul suñ tuba ak for maam Serame Fall bi sëñ tubaay bëgg jeex escalier da ñëw ni ko waral ci sama ginaaw gi daf ko bot kérok suñ musa Kane kérok daf ko ni wàkk bo yobbu l'ambiance bëgg nañ fa kérok bëgg mo xam jëlo na France sant mak mu am 47 ans nga ñu ko waral sama ginaaw gi waro laal su sa ndam lu reey li fam ko dalal moko mom moom mom moom la Macky Sall fi lay fanaan tay gi waaw keroog bi Sénégal amee indépendance la Senghor wax ni fii Ibrahima Fall defaroon suñu tubaab daloon fi ma gën a dal sama xel nañ fi def palais bi kenn du la coup d'état ah. ndax léegi-léegi nga dégg ñu ni sëñ Tuubaa tax mu am jàmm benn waay di ko werante loolu lay daal leen rek jëwriñ jëwriñ bi nee na baax na sëñ bi sëñ Saliou mii moom xamante daa yàgg lool Thiès lañ njëkk daje ca kër Giri Taal Mbaye fa lañ jëk dajé yalla yalla defal la jàmm ak tawfiq barké Serigne Touba sëñ bi néna yam fofu ah lamp mi day woté bisu Cheikh isa Cheikh isa bis bi mu jébbuloo ci bisu lako la ko sëñ Touba seexal fii la ko fi ci fii ci Touba Touba gii la ko seexale bis bi mu jébbuloo loolu yombul lu mi am yalla yalla defal la tawfiq mom Cheikh isa rek la bëgg saa ñoo ngi lay nuyu lamp li nga def dafa reuy kii nga tudde bis bi jikko ji rafet la yor te am na aw tuddin dafa am aw tuddin woo xam ne boo ko tuddee woon nit bis rusoo ko tuddoom waaye aw tuddin lay doon nag ndax dalay leer ni daray àdduna toxul nga def ko moom mii tamit mboolem lu mu mën a am da koy da koy bokk ak nit ñi nit ku tabe la xam naa ko baax ndax euh, bari waa nga tudde nit bis mu ñëw yow mi ko tuddee day mel ni sax dalaa jënd dalay band baraj pour nga jox ko kàddu gi mu noppi dem waaye toog fii di teral nit ñi loolu ak cofeel la sa diggante ak moom tey yow nag li wax ji bari bari nag kenn du ñu làmp fi moo moo wax nangam ku la xam ci lu baax la la xam ak ak dal ca teey waaw mën a kaf mën a reetaan loolu rek la nit ñi xam ci yow yàlla yàlla dolli sa teraanga defal la tawfeex ju bari ñoo ngi nuyu mboolem ko fi teew rek sama nijaay ñoo ngi lay ziar engagement bi am na solo yow yàgg saañaan sax da yàgg tabarkàlla yàlla yàlla defal la tawfeex moom mii ku dem Mali léegi la jéego yi fii la koy fii la koy joxe waaye ku ma sa dem Mali bu la joxul micro moom mii ku mu xooj Mali ñu nga xooju ma la jox micro bi nga jàng wala nga waxtaan micro central la fay dégg waaw ñëpp lay taxaw doon jàmbaar waaye léegi yitte yi daal ne fi nag sëñ Balla Cor rek la gëm nag ak sëñ Bay Mbàkke jaaxal tubaarkàlla yàlla yàlla def tawfeex ñoo ngi nii ñëpp sëñ jàpp sëñ Mamor sëñ Ibrahima sekk sëñ Mourou li nga def rëy na lool yàlla yàlla fay la sëñ Xaadim Jóob sëñ na Omar